Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk ñëwaat nga rek ci sa leçon bi nga xamne walu julli la diggante bu ci nekk ci biir julli la nga fa wara wax léegi ma tollu yang ak yow bo su sujjootee léegi nak bo tegee sa jël ci suuf ba ñaan li ngay ñaan ba paré bu fekkee ya ngay may topp bo yëkëté sa jë la nga tégaat sa jë ñaarël bi yon digënté bobu amna lo fa wara wax muy ñaan gi malay wax da ngay wax ne rabbi ikhfirli rabbi ikhfirli, xam nga wax nga ko ñaar yoon nga tegaat ci nak allahumma ikhfirli warham ni wahdi ni wajbur ni waafi ni warzuq ni warfa ni bu ne dafa gudd jangal rek ding ko man inshallah allah ya waxat ko bo yekati sab jeh ci suuf bala nga tegat sab jeh deuxième ba bi da ngay wax ne rabbi ighfirli rabbi ighfirli allahumma allahuma warhamni, wahdini wajburni, waafini warzuqni warfani. wajbur nii warfa kon fi xawa tok di nga fi xaw a toog ab diggante waaye ñëw rek teg sa jë def ni bala nga àgg nga tegaat sa jë yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nga xam ne noonu la ñuy jullee mel ni baaxoñ buy cof nee na buñ jullee ba pare seen julli gi day duñ ci am leer ñenn ñi ne sax malaaka yi ni lem julli gi ba mel ni basaa ñu xëppaal la ko si xar kanam na la sa booxul mën a yàgg sa julli ndax rek julli goo xam ne ni yàlla nangu ko waaye ñaan gii nga ñaan de boo ko ñaanee suñ boroom loo bëgg ci say aagi dina ko faj tey di fa am ab diggante te di nga am leer gi nga xam ne moom mooy bàyyeekoo ci biir julli nga yaatal rek audio bi wala vidéo bi incha allahu li nga bëgg yaa ko xam boo ko yaatalee lu mu gën a bari li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy suñu yaakaar moom moo ñu waat ci julli